Euh, suñu euh, beneen actualité waxtaanee itamit ci inauguration tribunal Rufisque euh, ministre bi nga xam ne dénk wàllum justice di Ousmane te woon na fa nag daal di yëkkati ay kàddu yu am am solo lu jëm ci seen responsabilité loi li mu wax lool la ñuy ak lépp ñu daal di dem déglu élément bi daal di dellu si suñu plateau. moi les attributions de mes fonctions je les ferai quelle que soit la personne ce sont des attributions d'ordre constitutionnel. c'est cette euh, possibilité pour le garde des Sceaux, j'allais même dire cet impératif pour le garde des de prendre une décision dans le sens que vous avez évoqué. Et évidemment, si véritablement les mêmes causes produisant les mêmes effets se reproduisaient, ce serait sans état d'âme. Ce qui est constant, c'est que, si j'ai bien compris, l'intéressé, c'est de Mais la lettre, évidemment, elle a déjà été rédigée. Une enquête est ouverte. Pourquoi une enquête euh, devrait être ouverte Une enquête, c'est quand il y a effectivement une mort suspecte. Ce n'est pas le cas. Les conclusions de l'autopsie ne rendent nullement compte du caractère suspect du décès. On ouvre une enquête quand effectivement il y a une mort suspecte. Ce n'est pas le cas en l'espèce. voilà merci beaucoup waa euh, régie ñu ngi leen di jaajëfal bu baax a baax euh, Assane Mesere hmm. inauguration bu fa amoon ci tribunal Rufisque Moussa euh, ki nga xam moom mooy ministre de la justice Ousmane Diagne woon na fa di xamle que ne daal dafa mel ni mu waxee kumba am ndey ak kumba amul ndey daal dinay euh, dañ ci réew mi te lépp loo xam ne lu war la lépp loo xam si responsabilité nañ ko def lépp lu loi wax ak ku mënti doon ak ku munti concerné dañ koy appliquer à la rigueur lii lañ soxla woon de. waaw am na solo. Mhm. Ah, bu ñu ba Tëngéej. Mhm. ñu tijji fa ab tribunal. tribunal bu njëkk waa Tëngéej dañ daan bàbbikoo foofa di ñëw dakaar gii di fajaru jóg six heures wala cinq heures mhm. ñëw fekk si ab àtte buñ ñëwee rang dugg toog ba onze heures daanaka duñu am àtte mhm. léegi nag comme que ubbil nañ leen ko foofa buñ defee kaso foofa côté Sibi Xutaan buñ jàppee ay nit seeni mbokk dinañ fa mën a dem mhm. di leen toppatoo di leen gis buñ leen di àtte seen i mbokk mën a ñëw toog. ba àtte bi jeexee ñu duggaat seen kër. loolu lu ama am am solo la loo xamante ni am na. bu ko defee rek ñu gën leen a soññaat loolu waroon na ko wax pour ñuy xëy heure di wàcc heure. waaw mu xamal leen ni procès yi kat nay tàmbali huit pose pause. une heure et demie ah, procès yi commencé wul heure boobu. déedéet. Mhm. procès même même si loi di huit heures zéro daa war a tàmbali. waaw dans les normes mais day tardé ba onze mu tàmbali. wala wala dix heures. Hmm? Hmm? waaw yow loo gis. <laughs> déedéet yow kay waxal sa gis loo gis. Assane yaay wax. Ah. yow waxal wax rek. moom laay wax déet déet yow ban heure nga gis yow. <laughs> yow kay say wax nga rek. man say wax. da nga wax maîtriser woo ko. Assane waxal wax rek. ban heure lay commencé yow procès yi. Assane jël nga ñëpp dëxañ leen fenn. du de. yaa ko wax benn bureau la woon te daa amoon problème <laughs> benn de man ba 10 heures daa amoon problème ndax booba dafa amoon changement document yi am ñu jëlee fii yóbbu fee ñu jëlaat document yi di ko defaraat. mënut a teel a tàmbali mënut a teel a tàmbali. rek <laughs> 8 heures la yëpp yi commencé. <laughs> mais ñoom gouvernement bi il faut ñu teg teg leen si ay moyens yoo xamante ni dinañ mën a tàmbali heure bi ñu bëgg a tàmbali ndax ñoom fajar si si àtte fajar la ñuy jóge seeni kër ñoom it huit na fekk ñu pointé waaw <laughs> waaw si si ñooñu sama samay xarit maa leen di nuyu bu baax a baax di leen ñaanal jàmm di wax ni ñoom ay liggéeykat lañ ay àttekat yu leer la ñuy àtte boo fi waxee onze lañuy tàmbali ba trois points ñëwal kon daal ministre bi <laughs> man daal maa ngi si ministre bi nekk na Cissé. <laughs> moo gën ci yàlla ministre bi laa la jox de. <laughs> waaw waaw damaa jàlloon si Cissé te ministre <laughs> bi ma tax a jóg. waaw yaa jàll ci Cissé. waaw man naa yem si ministre bi ministre bi ah. voilà li mu wax ci responsabilité. Ah, en tout cas ami ngi noonu ñu ngi ko si encouragé di ko wax ni ko na gën a tijji tey ñu gën a defar na na na jublu si kaso yi. Mm. na dem seet kaso yi dugg si chambre par chambre. Mm-hmm. di leen laaj ay question ñu koy tontu seen bopp moom muy dégg nopp ak nopp. balaa li amoon fii si kii bi amaat ndax fii gis nga bu ñu ña fa doon xeex ñu yor ay téléphone ñu yor ay paaka ñu yor ay nàngam ñu ñu kii leen kenn attiwu leen mu fexe ñi nga xamante ñi ngi si kasu bi dix ans kenn attiwu leen mu fexe ñoom ñu jukki leen atte leen ñi fa am cinq ans ñu jukki leen atte ñi fa am deux ans ñu jukki leen atte ñu fexe atte ña fa nekk ñëpp ñu si def dara ñu xam ne seen pen mat na ñu génn wala matut ñu def dara ñu bàyyi leen ñu ñibbi moom nag lii li fi yëg mi ngi fiy toog moom ministre bi mhm. na fexe ba buñ fa yóbbu kenn ay at te ñu ko àtte mhm. na fexe ba nii mu ko tàmbalee ndax wax dëgg yàlla ku ñëw ñu daaj la ni la bis sàngam lañ lay àtte du mat semaine mhm, loolu liggéey bu rëy la ñu ngi koy ñaan mu gën see focus si ñuy àtte nit ñi tey di toloore yu bari nañ leen di toloore tolloore yu baree baree bari ñu ngi ñaan ñu koy toloore takk yàmba ay ay takk yamba yu yenn takk yàmbaa yi maanaam cornet benn cornet wala ñaari cornet buñ la si jàppee hélas mi xam ne li may wax déedéet yàmbaa mu ko <laughs> ah! ko xam nga li nga yàmba <laughs> dama dugg ci yàmbaa ah, xam li may wax léegi ne xamoo xamuma dara ci yàmba yàmbaa ka yow mi ciy dugg naan xaw ma lan kor nan nga wax déet wax xam na ko di moom xamu ko de yaa ko xam ne en tout cas ñu ngi koy ñaan mu toléré yi même yool lii maanaam nit am na koo xamante ni tey ji mën nga koo yóbbu ko ci kaso bi. Mhm. ndax am na kuñ ma signalé. biñ demee ba arrêté ko ba def dossier ba defeeree ko après nag si nañ ñee dem ñaan bañ ni pare nañ pour jéggal ko. Ah. ndax dañuy daa bëggoon a àgg si doomam doomam ju am fukki at wala matu daam ko si bëggoon a àgg si kawam. waaw yooyu bu ñu la si jàppee di la si tëj ay fukki at te àggoo. Ah, daa waroon yegg daal Ah, daa am ko xam ne dañ ko arrêté ndax daa am ku ko pelante ndax daa bëggoon a àgg si doomam. daa bëgg a àgg si doomam. Mm. daa bëggoon a ah, la. tey nee nañ sax li loi bi wax ne boo même boo ko génnee di ko wan loolu dañ lay daan. waaw kon nag in faut que ñu dimbali ñu. ci jublu. nee nañ ñu dimbali si si si loi bi. léegi même boo dee kërti kërti li nga bëgg a mënu mujj sotti ak ak boo si àggee daan yooyu wërta yem hélas wax dëgg yàlla fekk yaa ngi jéem àgg ci kawam àggoo ak boo àggee ci kawam daan bi wërta yem ndax xam nga mën ngay jéem mu të ñu bett la fa nga daw kooku bu ñu la jàppee waruñu laa daan ku jot a àgg même doonte yéene woon ngaa àgg même yéene woon nga bu ñu àtte yéene ji te ni ma gisee nii affaire l'islam ndax àtte bi yéene yéene àgg lañuy ñuy àtte tëj la si kaso fukki at wala juróom at yéene àgg fekk nañ ko mu summeeku ba set tëddoon si kaw ndaw si waaye jot àgg ci kawam kooku liñ ko war a àtte hélas waxal <laughs> jox ko sax jox ko mu ko ci yow lay des. mille six la six six daal laay waxal. ngeen ne jaxal hélas génnal foofu <laughs> baax na joxe hélas. waaw damay jël ci ministre bi laa jëm léegi génn naa ci àgg beeg ñàkk yegg bi maanaam àgg bi moom 10 ans la kon ñàkk yegg bi ñaata nga bëgg mu doon. ne nañ ko wàññiwaat yool bi. Hmm. nañ ko wàññi. te képp ku ñëw di la àtte nañ woo ab expert mu ñëw xool. ba xam ab ab docteur mu xool ndaw si ne kaay taxaw nii dëpp ko caméra xool ko ba àgg nañ si kawam wala àgguñu si mais bu ñu la kiyee lu yàgg ba ba bisu àtte ba wér man nga fee wér xam nga maam nit bu fekk nit àgg na si kawam mhm. wër ta mën a dox normal loolu lépp docteur yi nañ ñu si dimbali bu baax a baax a baax ndax ñi si tëj bari na trop ah non man moom am naay soxna si laa yem soobee ah, yàlla alhamdulilah rabbil alamin na sunu borom mhm. li fi ak maa ngi dund samay soxna laa xam te si laa yam sama yoon nekku si gone déedéet laalu ma gone jegewu ma mhm. gone waxuma gone man kilifa laa te maa ngi koy conseil kilifa yëpp mhm. nañ sori gone yi ndax gone yi dañ leen di tuumaal dugal leen si luñ xamul voilà mais Thierno Alice Sy ak Barthélémy Diaz ministre bi am na lu mu ci wax maanaam nee na sax bu Thierno démissionné wul woon démissionné wul woon moom day def la nga xam ne moom la ko yoon santaane maanaam daal amul lenn muy <coughs> parparloo Thierno nag mhm. parti dinaa ñëw sa moom mais Thierno li mu def noonu waru ko woon a def démissionné warutoon a démissionné ah waaw bu fekkee ni yoon dafa tegu ñu ni mhm. képp ku ñëw si ensemble bi de bu fekkee yoon daan na bi day bind génne la waaw ah parti li mu dugg ministre bi bind génne ko moom Thierno dugg na xam na ni ministre baa ngi si kawam na may ministre bi mu ñëw si kawam su ma xamee rek bay ñëw. non non non non warut a démissionné non non warut a démissionné gi si moom la baax. ñu ne am na gën a déeru démissionné mais baaxut si ministère bi baaxut si gouvernement bi. ci naka. waaw ministre bi da war na fekk xamaa ko ne ko yow Assane Mesere nga bokk ci man nga ñàkk bokk si mën a yem génnal. Hmm. mu génnal nga xam ne ah ministre bi kat ay la yeween génn na Barthélémy Dias génn na. ministre génn na kii ki bokk ci moom bokk ci moom mais fi ne day mel ne dañoo waxtaan ak moom ne ko garaaw bàyyi leen waxtaan ak moom mu bàyyi te wërta demee noonu ministre ba ko waroon a fekk ak décret bu saf saf ni ko sa biti parce <laughs> que la ma seen bi simple yow. <laughs> non na wërtoon na démissionné dafa waroon a xaar ministre bi fekk ko fa mais bu démissionné loolu kii wut daf dañ ko waroon a dekk da ko waroon a génne ministre bi ko waroon a génne. ñu ni génn na parti bi yaas génn na kii. Ah? lu mu ko war a génnal ca. décret bu saf sàpp la ko war a génne sa biti. <laughs> ñoom ñëpp waaw. waaye wurta démissionné. Assane daal dara na dem saytuwaale ñi si desaat nekkaat sa ensemble ba ñëpp. Ah, par kenn par kenn waaw. na xool ñëpp ba xam. kon am na ñu des Assane. wóoru ma na xool ba xam laa la wax. Oh, wóoru la alhamdulilah ah. kon. voilà sax. Mhm. Euh, inauguration bi de euh, kii Ousmane Diagne ministre de la justice profité na ci yëkkati wàll ci ay kàddu kàddu yu ñu jàpp ni am na solo loolu nee na nag lu jëm ci mbirum responsabilité am lu jëm ci mbirum loi amul kenn kum ci xool lépp lu yoon santaane daf koy def ba ci mbirum ñu mujj yi muy Barth ak Cheikhna Ali Sam Ali Si waaw xam nga loolu moom mhm. euh, jaaxalut ñi ko tànn parce que ñi ko tànn loolu lañ ko tànnee mhm. te biñ ko tànnee it noonu lañ ñu ko présenté mhm. wax ñu ne ñu kat nit la koo xam ni ci njub lay nekk te nekk na koo xam ni mënoo ko jàdduloo mhm. yoon saxaar la koo xam ne ci raay bi lay jaar mhm. raay boobu nag mhm. kenn mënu ko cee wàcce loolu mooy li nga xamante ni bi moom la ñu présenté te bañ ñu koy présenté ña koy tànn bi ñu koy tànn noonu lañ ko tànnee te loolu la ñuy séentu ci moom parce que bés bu defoon leneen rek lu waroog loolu bu boobaa day dellu ci moom moo tax pareen saay Eh, yenn post yi nga yor ko te li tax nga yor ko post bu ñuy àttee sëg njuba tax ñu tànn la teg la loolu dafa am solo mm-hmm. eh, li mu wax aussi xam nga Assane nee na Thierno dafa waroon a xaar waaye olof dafa ne xam sa bopp a gën ñu woola di la ko ah, waaye wóoruñu ba xam bu fa nekkoon nag fu jëleem déedéet xam sa bopp laa Ah, waaye dama xam na waaye wóoruñu baax ma ci wóoru ñoog yooyu loolu yow ne man nekkuma foofu mais dangaa war a nekk baax est bu fa nekkoon dana ko fa jëlee du ma ñëw ci est-ce que est-ce yow bu la neexee nga nekk ci say est parce que yow est-ce que buñ la songee léeg-léeg di reculer ba génn géew xam sa bopp <coughs> xam sa bopp gën ñu woolu léegi nag dafa uh-huh. am ñaar ñoo xam ni euh, dañoo nekkoon ci même situation bi kenn ki xam boppam keneen ki xamut boppam mm. ki xamut boppam yat wi dal ci kawam ki xam boppam génn géew bi balaa hmm. ñuy yegg si di ko dóor yat bi loolu mooy li nga xam ne mooy li ne waaw parce que kii dafa xam yëf yi ba taxaw public wax ñu ko moom moo ñu ko wax ci pénc mi ne daanaka sax mënatut a nekk candidat diggante fii ak nàngam moom xam na ko mais terewu ko mu def li nga xamante ni bi moom la def loolu yëpp tey mënoon na ko bañ a dal mais li ko indi lii yëpp ñàkk a xam sa bopp aussi tamit ci la bokk. Mhm. kii nag xam na boppam daal gis nga politique bi dafa am loo xamante ne euh, bu njëkk ba dañ doon defe ne maanaam mën nañoo doxalee nu nekk mën nañ ko régler. di jël fu justice wala dox tootuñu fa doxal justice mais politique lañ fay doxal. Mhm. te loolu dafa am. lu bari lu muy yàq ci yoon maanaam dootul baax ci wàllu justice mais politique la ñuy jël am na lu bari loo xamante ni bi dañ koy def mhm. mais du du daanul woon firi yoon mhm. te yoon moo waroon asir ci yenn point yooyu mais nañ ko waxtaanee mhm. nañ ko lii dugal ci wàllu politique loolu nag buy fees day dem ba mujj gi day mel ni yoon mooy def lii te fekk ne mbir yi du mbir yóbbu maanaam gis nga yoon bu buñ ko tëralee ne nii la demee. Mhm. tey ña ko doon doxal doxal ko kon Barth doonul woon sax yegg si fii parce que ña nga xam ne ñoo ko condamné woon euh, bañ def bu procédure bi continuer woon. Mhm. Barthélemy génnoon na assemblée bu yàgg. waaw waaw. yaa ngi mhm. tey jii kon Barthélemy kenn du wax bésu tey maanaam dañu reporté yëf yi mais réglé wu ñu woon problème bi maanaam dañ ko puusoon dañu problème bi musuñu ko réglé Macky Sall pour pour régler wut problème Barthélemy parce que moo ko indil problème te réglé wu ko. parce que problème bi moom da ko doon ci ab Ablaye Wade di jariñoo jafe-jafe Barthélemy ci nu mu ko neexee. heure jariñoo bi mu ko doon jariñoo bi mu demee ba dernier moment xanaa mu setaloon ko parce que boobu moom gisoon nañ ñi yëf yi doon demee lépp lu mu mësaan a bëgg da daan am li mu ko bëggee ci Sonko ba fexe ba nekkut candidat. Mhm. bu defoon pen boobu moitié loolu rek ngir setal barte barte kon tey. Ah. du ñàkk mairie du génn assemblée. Mhm. mais moo ko fi bàyyil problème bi puusal ko ko. léegi nag ñii bi ñu ñëwee xooluñu lu dul yoon léegi ñu def yoon. léegi nag ci kaw ñuy def yoon. nit ñi bëgg a. inter élément ñaari élément yi dugg nga. dugg nga si parti ba ba. non dugg ma ci parti. non non parti nga nekk ci kii bi laa yem ci ci ci Thierno Ali Sy beeg yooyu. ci Thierno Ali Sy bi. Ah, ak parti bi. Oh, waaw parce que Thierno Ali Sy ci la ci kii bi la. bokk nañ ñëw ci beneen anam loolu ci beneen anam la. voilà asam maa ngi contrôle yi fii. Hmm. quand même. ministre bi tënkee yaa ngi dégg <laughs> <laughs> yaa ngi dégg je contrôle. voilà la situation. comprendre mhm. loolu mooy li nga xamante ne bi mooy mbir yi nga xamante ne bi mooy li am mm. donc nañu moytu man bu may doon wax état dama koy wax ne ko mm. nii ñu tàmbalee nii nañ ci continuer mhm. yoon fépp foo xam ne mi ngi fa mm. buñ ci dugal politique parce que baaxut fekk yoon ñi ngi koy doxal rek yoon la mhm. que ni mu metti walla mu neex nit ñi dinañ yëg ni yoon la maanaam tey dina am sax peut-être ñoo xamante dinañ ne ah. Mhm. moonte de li dal Alice de li dal Bart de dal na seen farandoo. ñu ne waaw parce que yoon moo doxalee noonu yoon moom xàmmewut ba wala ma dem ba feey la xam jëf jii de lii moo ciy topp point mu jeex. Mhm. te loolu mooy li nga xam ne mooy li am solo. catégorie yi bokkut. loolu am solo ah. ma ne ko moom moom catégorie yi bokkut ak gabarit yi. yoo xàmmewut loolu. <laughs> xàmmewut gabari. yaakaar naa ko de dama ne la yoon xàmmewut ay gabari. Hmm. ay gabari yeeg ay. yoon xàmmewut loolu yëpp yoon xàmmewut loolu. xàmmewut si fee rek fee lii xew lii lan la. Assane yoon hmm. xàmmewut loolu yëpp yoonam nekkut ci loolu. saa yoon lu mu xàmmee daal mooy boo defee rek ñu daal di lay wóolu.